alaji pa bu fekke ni da nga tok munuto am dara waw nga sango sango ba sonu giso dara nga tak tak tak ba sonu giso dara waw nga saraxé saraxé saraxé ba sonu giso dara jëlal ma astaghfirullah bi mala jox ci 15576 nga tàmbali ko bisub dimas ba semaine bi jeex manam mu nek dimas ñetti fan dimas ba ngatok bi delusi soko tambalé nga tok di def astaghfirullah 15576 bala muy jeex bala semaine jeex sunu borom dana la won li ngay gënt pour saraxé ko nga génne ko nga saraxe ko boo ko saraxee ba noppi juróom-ñetti fan yi bu jeexee nga continuer nag di def astaghfirullah 1947 sunu borom dana la dimbali. allahu akbar adduna dimbali la allaaxira mhm. dana ubbi say bunt ba dootoo soxlaal kenn dara. ba tey jii astaghfirullah bu fekkee ni nit ki dafa bëgg maanaam weer wu jot sunu borom jox ko ci weer woowu lu faw ko weer way ñëw na def astaghfirullah 1947 yi bu liggéeyee set. bu defee astaghfirullah 7 day def alam nasara 79 def sóoratu xoreysin 79 daal di defaat astaghfirullah 40 jàng sóoratu euh, jàng sóoratu sarxi 79 mhm. def xoreysin 79 demaat def astaghfirullah 900 mhm. def sóoratu nasri euh, sóoratu euh, sarxi 79 def sóoratu xoreysin 79 mhm. après defaat astaghfirullah 1000 daal def sóoratu sarxi 79 def sóoratu xoreysin 79 bu paree nag mu jàng aaya bi faxul istafru rabbakum innahu kaana afaaran mu jàng ko 84 fois mu def ko ba mu man ñetti yoon ci semaine bi manam ñetti fan ci semaine bis yi njëkk yi mhm. premier jour deuxième jour troisième jour ba mu continuer di def 1947 loolu moom jarbu naa ko boo ko def da ngay dem ba mel ni kuy luxus maanaam fi ne nit jàpp defe ni kii moom lay alal te fekk ni man li ma koy may sunu borom la. wallaahi maanaam képp ku jàpp ni sam million mooy tax sama mbir dox téye ko waaye istixfaar salaatu ala nabi latif bismillahi rahmaani rahim amul morom.